ak booy Diop ndeysaan Diop trompeur. trompeur ndeysaan ñoom ñaar ña nga ca digg Diop ba di lëëtoo ba léegi. Boy Diop trompeur léegi jël amagul. trompeur Boy Diop. Boy Diop trompeur ndeysaan. mu yéen looy def nii bu ñu la doonee nga waaru de. Boy Diop trompeur ñu ngi xeex xeexu kaw. jàppante nañ jàpp door nañ ko mu wàññeeku door nañ ko mu wàññeeku cabaxal na ko galgal ba dalgal ba ga ñaari xale yu bëre nañ xale yu bëre nañ waa ay waay ay waay làmb wane dina boppam làmb wane dina boppam